di ko indi ci kër gi ndab yooyu nag ñi dem ba xam ni ñaw yi day ñëw di fi bari di yàqu ñu mujj wax taalib yi ne kenn ku ci ndab la nga daan def ñu waajal ko dajale ko indi ko ci daayira bi su ko defee ñu indi ko sëriñ bi ak euh, ndab yooyu nag yàlla dogal na ni tey jii lañ dajale addee ji indi ko sëriñ Mamour Mbacke euh, mbooloo mi àndandoo ñu kon xam naa dañuy jox suñu seex kaala ja rek kàddu yi bu defee mu gën a leeralal. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nii mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fun mën a nekk rek ci biir réew mi wala bitim réew mi di leen siyaar bu baax te di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nekk di leen it di leen ndokkeel bis bu màgg bi ñu dëgmal di ñaan suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm jataay bi ñu toog nag ku ko gis tey taalibe kër gi rek da xam jataay bi ndax fii ñu toog nii mooy keesu soxna Aminta Mar ne fi la sëñ Maam moroom Mbàkke moom Seex Masamba féete ñu fekk fi tey ji ngir jébbal liggéey bi nga xam ne si ne daayira almutasaddiqina wal mutasaddiqaati bu Touba doon na ko dajale ngir ngir di ko ziare sëriñ mu doon barkeelum ci kër gi ci ci ci bu nee suba la màggal liggéey boobu nag comme ni ko sëriñ Mamour Gueye waxee liggéey bu yàgg la ndax suñuy waajur ñoo ñoo àndoon ak sëriñ bi dan dan dan daan liggéey ci kër gi bu nee suba la màggal ku nekk ci ñoom fa nga nekk nga daan ndap di ko indi ngir ngir ngir ngir ànd ak sëriñ bi bis bi rawatina bu nee suba la màggal ndax ku xam kilifa xam na këram day bëri ay gan ta ganam yoy pour mu berndeel len nit mom mo koy def ande ko njabotam ta njabotam gogou nak ken jitu ci talibi ndax ñom doomi xol la nam talibi yoy nak àndoon ak moom daan togg ñoom di indi ñu dem ba yag jamono mënut tuta doxé nona ñu gis ne lan daan togi di indi muy dooni mun ken mënu ko añee diko réré reere kon dajale addiya ya, indi ko fi ci kër gi diko fi togg nan ko soxla moy gën ñom mag ne ban ko xalaté ñu défé ko nona ba yalla dogal tay bu obligé liggéey am wacc ñu ne wacc nan ñenn ñi jóge nañ fi yàlla yàlla yërëm leen te jéggal leen ñenn ñi it jëm nañ mag ba mënatuñ ko ñun ñi juddu ci biir laxasaay googu nag ñu gis ne loolu wares na ko wéyal looloo waral ñu ciy soññi saa su nekk ku nekk ci ñun lam ca man mu di ko def teguñu kenn lii ngay joxe moo tax ñu koy soññee jamono bu nekk sëñ Modou Diagne mii nekk sunu ndeyjoor ne moo yore wàllu communication boobu jot ku nekk ci ñun fàttali ko lam jaayantoon ak sëriñ bi ci bis bu tedd bi soññee da ca nag nam ca war a soññee ñi yàlla dogal ñu joxe it joxe nan ñi yàlla dogal ñu joxe wut it xëy na joxewul waaye ñoo ñëpp rek lu baax lañ bëgg lu baax la ñuy wut tey kii mën naa man jekku def ëllëg keneen man naa man jekku def kon ñi joxe yóbbaale nañ joxut te jëfi mbooloo loolu rek lay jariñ saa bu ñi defee ñee defuñu it teewul dañ leen yóbbaale ci bi ñu ñoo koy bokk incha allahu taala dañoo dajale woon nag jotoon toll ci juróom benn fukki junne ak ñeent 320 mille dañ jotoon dajale jébbal nañ ko sëriñ bi mu ngi suñu ginnaaw mooy jataay bi ñu toog nii ngir nag ñu war a def ab fàttalante ci li ñu bokk kon ku nekk bàyyi xel foo mën a nekk nga bàyyi xel ne jataay bi nga doon liggéey bi jébbale nañ ko ci loolu la toll waaye nag di soññ suñ bopp di soññ ñëpp rek di leen xamal lu mënta ñàkk la kon faw gën ko jox yitte ba liñ ci joxe nii at mu jot gën da yokk war noo mën a dem bay un million ako nag ndax nag wi kat Mamor Kébé moo ñu koy jëndal joxe ko ñun ñu dajale lii jox ko mooy dépense te loolu war naa mën a dem a dem a dem ba ñuy def lu raw lii loolu lépp nag suñu positif képp lay tege ndax doomu aadama moom lépp lu mu jëm man na ko ndax yokkatee mbir ci kaw suuf moom ci loxoy doomu aadama la ko yàlla bàyyi yàlla du wàcc di yokkal kenn dara kem itti ji nga am ci mbir mi rek kem itti jooju lay yokkoo kon ñu ngi ci soññ suñu bopp di soññ ñëpp ñu gën cee bàyyi xel sëñ mu jaañ mi képp ku muy woo di la soññ di la woo nga nangu ne dalaa war a woo ndax woote mooy rëlam moom lañ ko sant su doon woo ba keroog ñu koy jébbale it ku joxee gut te dikku dana la woowaat kon képp koo xam mi ngi lay woo na nga gën a defar sa xol te gën a dalal sa xel te xam ne loolu rek moo leen boole boo joxee dootu la woo soo yàlla dogalee nga tële ba ne ko dama koy jégal ba déwén yi dootu la woo kon comme ci woo ko woowaat na nga xam ne daa jàpp ne war ngaa mën a joxe yow it nga jàpp ne war ngaa mën a joxe te joxagoo ko boo ko joxee dig nag kon dana la fàttuwaat loolu rek ko woote gu bari yi nag yooyu yëpp it ñu ngi ciy tuubal mbokk yëpp ndax ku nekk xam na ne màggal bëri nay xat-xat bëri nay fere ku nekk am na loolu war sa kër waaye lii day lu mënta ñàkk moo tax faw ñu boole ko ci wala sax mu jiitu ci te jàpp naa ne ku nekk ñun lam la la ngay joxe su dajee du faw bu dajee doon dara te ku nek la ngay joxe jàpp naa ne mënu ko wor ci la nga def sa kër mm. te bu dajee rek man dara kon nak buñ ko non ku nek na nekiti alalam nam man nam ko mané joxe ko su dajee dana man fim dara te du gañ kenn lool rek lañ ci jublu te bëgg ñëpp jariñu it lool lañ ci jublu ndax bis bi kat bis la bo xam ne lu ci way def mm. suñu borom dañ la ko fay ngeen gi fay ak foko mëna mën a na dafa nak nga def ko nga defee ko nak ci barab bi nga xamni si ne nga doxale ci digënté ak sëñ mi tax murid bépp jog murid jog moy mm. sa wasila ci sëriñ bi nga tambalé bis bu ci mom dama japp né dana gëna dalum xel dana gëna a yaakaarlu ci ab liggéey kon nak loolu loo waral rek ñu ci sonn sa su nekk bëgg liggéeyal suñu sëriñ Cheikh Khadim jaar suñu suñu suñu suñu suñu wasila sëriñ Maama Mbacké mo Cheikh Massamba waye nak bëgg jariñ sunu suñu suñu suñu bop dong la nak liggéey Sëriñ Touba moom jariñ sa bop la lo ci def it yow lay delu liggéey Sëriñ Touba lay tuddu waye nak yow sa bop rek ngay jariñ kem lo def rek am lu ñu toll suñ bay jaax dafa wax ne kem lo defal sub sëriñ am lu ñu toll ci njariñ kon lo defal sub sëriñ jëruñ nga diko bëgg na do ko am kon nak nañ ci bayyi xel nit ñi fi ne rawante ci jëf yi kon nañ yeen yi gëna defaraat pas-pas yi gëna takkaat yi téy ñi ngi yeesalaat nak suñu njëbbal ak suñu jaayante ak suñu wasili wi di sëriñ mamadou Mbacke mo sama samba di sakku ci képp ko dégg suñu kaddu nga ñaanal ko suñu borom yàgg fi lool yàggal ko fi lool te mu and ak wër ba naa lim naalal ma sàmb mu def ko ba def ko nu kawé njortam te ànd koog njaboot gi ak mboolem taalibe yëpp ñu ngi sant mbokk yëpp fu mën a nekk tey ñaan ñu fekk waat déwén yu bari te luñ fekk mën ca dara luñ def ren bu déwén ñu mën lu ko ëpp lépp nag dajee ci ngërëmul sëñ Tuubaa sunu lépp yàlla na tàmbali sëriñ bi yem ci bi ñu ngi jéglu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa